asalaamaaleykum mbokki internet yi ñuy suivre à travers des prod média mate nañu mbégte jàkkaarloowaat ak yéen saa su nekk di leen indi la xibaar yu wér te wóor na karakti sa yeewoo fa ca xombal kii di wuyoo ci turu Maxali Cissé daan ne ñàkk bakkanam ginnaaw bi mu jotee ak xaritam boobee di wuyoo ci turu lamp mu jam ko paaka rek daw ginnaaw bi ñu saytoo mbir mi lee dafa amoon ko ko bëggoon a rey yónni ki nga xamante ne moom mooy lamp ngir mu dóor ko brique waaye mu jul noonu rek daf ko jam paak koy mbokkam gisee da ko yóbbu directement fale ci hôpital bu Thiès par négligence bakkan nam maanaam buñ ko yóbboo di vingt ba quatre heures du matin mu nekk mbir mu doy waar bu ñu nakaru loolu ab l'enquête nag ubbi nañ ko ngir ñu teg loxo ki nga xamante ne moom moo def jéye jooj n'oubliez pas d'activer la cloche de notification di ngeen jot ay leeral fii ci Sénégal ak bitim réew ci seen chaîne bii di DS Prod média